bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ñu ngi leen nuyuwaat bu baax a baax di leen jaar leen ndokkeel waa Seyda Seyda Bakrin Diallo ma allah ci audio bu am solo boobu. bu ko defee xam naa dañuy sóobu rek ci waxtaan bi incha allah Cheikh Omar Mbaye bu fekkee yaa ngi ñuy dégg man ngaa dugg incha allah su ko defee nga présenté wu incha allah. bisimilah rahmaani rahim alhamdulilah rabbil وأصلي وأسلم على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته gannaaw loolu ñuy sant suñ borom tabaraka wa taala ju julli si ab yonantam sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu mbokk yi nga xam ne eh, ñu ngi bokk ak ñun groupe bi wala suñ kàddu mu ngi yegg ci ñoom ak fuñ mën a nekk di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu boole ñu defal tawfiq um salaam wa rahmatullahi wa barakaatu ah, Cheikh Omar Mbaye macha bu ko defee oustaz Kama bu fekkee yow tamit yaa ngi dégg bismillah mun ngaa dugg incha allah nga présenté wu bismillahi rahmaani rahim di nuyu di bismillah aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw kay Cheikh Modou Kama macha allah bu ko defee xam naa jàpp na ni ci at moom yow yaa gën a féetoo ndaw bu ko defee yow la jox benn privilège bu ndaw rek moo dina yow lañuy ñuy a bàyyi nga ubbi débat bi incha allah bu ko defee ñu doog a ñëw ci Seydou Amar mbay waaye dinañ di fàttali rek ne nañu góorgóorlu ba audio yi bu mu paasee. deux minutes gën ngaa bëri euh, trois minutes bu ko defee Cheikh Modou Koma dañoo bëgg na ñëw ci paas bi incha allah jàngal ñi ko firil ñu ko incha allah ndax bëri na xam ne xëy na euh, fokk ñu firil nañ ko ñu doog ko mën a dégg bu baax te débat bi moom dafa am solo am solo koo xam ne ñu bari nga koy topp te bëgg nañoo xam lu leer ci mbir mi incha allah. Euh, jërëjëf sëñ bi maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu sëñ Omar Mbaye ak. yi ci groupe bi yëpp tabarakallahu waaw dafa mel ne page bi ngay sàkku ma firi ko euh, loolu njeexintalu wax la kon faaw ñu xam wax ji fan la tàmbalee borom taqdisul ashxaas fil fikri suufi dafa wax ci page cinq cent cinquante neuf ne niti tasawuf yi te fii ñu toll mi ngi ci jublu ñi gëm waxdatul wujud ñi ko gëm nit ñooñu dañuy am fit ci di viole ndigali yàlla yi wala di def ay tere yàlla yàlla di e, tere ñu nekk mu ne loolu nag koo xam ne da gëm waxdatul wujud moom e, loolu def lu xaraam du dara ci yow waaw du dara ci yow ndax su fekkee de da gëm ne yaa féete kaw maanaam yonent yaag yaa leen gën a kii ak yu ñu mel noonu nangam nangam yow doo faale kenn mu ne ci loolu nag moo tax ba ñu tilim saa yi ne ko seen téere bii di fusuusul xikam dafay wuuteeg alxuraan wala alxuraan daa fu suus mu ne alxuraan lépp bokkaale la seen téere yi ah, wala seeni wax ñoom sufiyanke yi wala ñoom waa wax wahdatul wujud moo am tawxiit mais alxuraan moom shirk rekk a fa nekk ñu ne ko nag su fekkee ne wujud bi yépp lenn la lan moo tax jabar di dagan te rakk ju jigéen di araam mu ne lépp ci ñun daal benn la maanaam lépp dagan ñi nga xam ne ñoom lañ yiir àgguñu ci daraja ju kawe yi ñoom ñoo wax ne xaraam na ñun ñu ni leen xaraam na ñun ñu ni leen xaraam na wax jooju nag dafa garaaw lool te doon laaj firnde juy wane ne loola xissa bu am la waaw boo xam ne sikk amu ci loolu rek la waroon a mën a doon ngir nit war koo mën a indi waaye su fekkee ne luñ sikki sàkka laam luñ sikki sàkka ka ko indeeg yooyu mm, day ki waaye boroom téere bi ñëwul gëstu loolu ndax wér na am déet directement dafa ñëw rek daat ne ñii dara araamul ci ñoom jigéen du araam ca magam ju góor ja yaay du araam ci doomam ju góor loolu nag ñi ngi ko teg ci waxdatul wujud te waxdatul wujud kat yahud yeeg nasaraan yi sax gëmuñu ko léegi lii mooy li nga may laaj pour mu firil la ko loolu la borom taqdis wax ci cinquante neuf cinq cent cinquante neuf ak cinq soixante baarakallahu fiik yaa Cheikh Modou Kama macha allah Seydou Amar Mbaye bismillah yow tamit dañoo bëgg nga ñëw firil ñu paas bii incha allah bi nga xam ne moom la ñuy niqaas incha allah baax waaw eh, ñu ngi delloowaat nuyoo su dee lu aju ci wàllu paas bi la eh, defe naa ne li ñu yitteel ci page bi moom yaakaar naa amuñu ci wute man ak Modou Kama Thiaw amuñu wuute jàpp naa ne ci li ñu yitteel ci page bi mooy daa am ab qissa boo xam ne dafa nekk ci page boobu muy page u euh, cinq cent cinquante neuf jàpp cinq cent soixante qissa bi nag alimaam ibnu taymiya mu ngi ko màng wala euh, cheikhana docteur Mohamed Ahmed Lo mu ngi ko indi ci contexte doon waxtaan ci waxdatul wujud waxdatul wujud nag yow mi nga xam ne yaa koy dégg te xamoo ko mooy àdduna bi dara amu fi lépp yàlla la waaw lépp yàlla la nit ki miir bi bant bi golo gi lépp yàlla ba kii nga xam ne mooy ibnu arabi sax nga xam ne sudul dul njiit la it bokk na ca ya dafa ne aqadal xalaa'iqu fil ilaahi aqi aqaidan aqadal xalaa'iqu fil ilaahi aqaidan wa ana ataqadtu jamia ma taqaduhu nee na nit ñi dañoo fas ci suñ borom tabaraka wa taala ay fas fas yoo xam ne yu wuute la waaw am na koo xam ne nii la ko gëmee nu wuuteeg na ko suñ borom santaani mu gëm ko am na koo xam ne la ko xelam bi may rek noonu la ko gëmee pas-pas yu bari mu ne nag man li nit ñi gëm ci yàlla yépp ni ñu gëmee lépp man gëm naa yéen gëm yépp loolu ci gàttal mooy lii di wax wahdatul wujud léegi nag bi mu indee pas-pas booba indi ay kàngam yoo xam ne dañoo fas pas-pas booba mu daal di tarjamaal kenn ku nekk indi ay firnde yuy wane ne yow mii da ngaa gëm waxdatul wujud ba muy jeexal mu tëjee gëstu booba ne dafay indi yàqute yi nga xam ne pas-pas bii mën na ko jur muy waxdatul wujud mu tudd sa nag ne bu ñaareel bi mooy at tajarru ala muqaarafati nawahi sharciya mooy ak ñeme ci euh, toggoo tere sharia yi te ku xam wahdatul wujud moom xam na ne ku ko gëm gëmul ne dafa xam lu xaraam kuy xaraamal luñ xaraamal loolu mooy kon ñett fi nekk loolu mooy ñett fi nekk si la nettalee nag qissa bi ne ibnu taymiya rahimahullahu taala moo wax ne Euh, tilim ni dañ koo wax ne ko alquran dafa wuteeg seen fusuus bi mu daal dina alquran kat lépp bokkaale la tawxid mu ngi ci suñ wax te nag jàpp ne moom bu ne tawxid mooy lépp leen na loolu la jublu ci tawxid alquran moom day séparé diggante jaam ak borom naan jaam am na boroom am na waaw ñoom nag dañ naan jaam ak boroom amu fi lépp yàlla ñu ñu ne ko bu dee mbir mi li nga wax noonu noonu la demee lu tax soxna di dagan ba noppi ab jàmbur bu jigéen di xaraam walla ab sëram di ñëw di xaraam mu ne ah loolu de si ñu xamul dara la waaye ñun ñi xam dara gëm waxdatul wujud ñun moom lépp dagan na si ñun kon loolu moom mooy qissa bi cheikh bi def commentaire mu ne ah kon ñoom ñi gëm waxdatul wujud nii mbir mi na leer ne cheikh bi waxul ne waa tasawuf ñëpp lii lañ gëm déedéet ñi gëm waxdatul wujud ci biir tasawuf ñoom la ne li ñuy déggee ci xissa bi moom waxul leen lu mooy li ñu déggee ci xissa bi xataa bu ko indiwu ni kon ñun dañ koy xamal suñ bopp li ñuy déggee ci xissa bi mooy ne kon ñii dara xaraamut ci ñoom ci wàllu takkante mu jeex tàkk loola nag ku koy kontor ñaar moo am benn xamoo waxdatul wujud wala gëmoo waxdatul wujud ki gëm waxdatul wujud te xam ko kooka moom loolu du ko jaaxal waaye ki nga xam nag ne moom gëmul waxdatul wujud mën na ko weddi bu ko neexee barakallahu fiik cheikhuna jalil cheikh omar mbay waa xam naa ñu gàttal audio yi naka noonu tamit xam naa dañoo bëggoon rek ñu yem ci firi page bi rek taxaw ñu doog a sóobu ci débat waaye dafa mel ni yow sa audio bi daanaka laal na poñ yu baree baree bare bëri waaye daal nañ firi page bi rek soo ko defee ñu taxaw ci firi page bi ñu doog a continuer ci li nga xamante ni mooy débat bi incha allah ojo euh, bi moom euh, gudd na trop ba daanaka fi mu nekk soo ko bëggee déglu sax <laughs> ba bëgg defaat <laughs> audio da lay bëgg jël daanaka dix minutes. waaye laa yitaal li ñu bëgg a wax rek mooy euh, Cheikh Modou Kama déglu nga audio bi nga xam ni moom la euh, Cheikh Ibrahima mbay def jëme ko ci waxdatul wujud ndax yow da ngay saxal ne loolu mooy wax waxdatul wujud wala. Euh, jërëjëf sëriñ bi bu ma yeexee dugg rek day fekk ne wax bi moo bëri boo bëggee déglu lépp faaw mu jël temps moo tax taqayut ci heure bi am na solo. waaw sëñ Omar Bay nag dafa wax ci audiowum bi ne euh, ki nga xam ne moom la ñuy waxal fii ci téere bi walla boog ci fiñ toll ni mooy ku gëm waxdatul wujud mu ne nag ku gëm waxdatul wujud waxdatul wujud mooy nga gëm ne lépp yàlla xaj bi euh, kii bi euh, maanaam mindeef bi miir bi lépp yàlla la loolu nag man maa ngi déclaré di wax ni képp ko gëm loolu yéeféer la waaye nag ñi mu tudd moom fu mu leen mën a saxalee ne gëm nañ loolu loolu laa bëgg a xam man loolu laa bëgg xaar xëy na loolu du débat bi dama ko lancé nii ndax lancé woon naa fi nit défi ci ibnu arabi ci wàllu futuxaatul makkiya waaja machine am mu ne dafa yàqu ba tey jii bu machine ba jagee man maa ngi taxaw di xaar ba tey ku mën a tuumaal ibnu arabi ci waxdatu wujud te mu nekk lu wér loo mën a teg sa tànk ndax moom mii dégg naa ko mu wax ne ibnu arabi moo wax ne aqada al xalaaiqu fi l ilahi aqaidan wa ana ataqadtu jamia ma taqaduuhu <coughs> loolu bëgg naa mu wax ma fan la nekk bu dee ci futuxaatul makkiye fan la ci nekk maa ngeeg futuxaatul makkiye la xëy na yoruma ko nii ci sama kii ndax dama ci tukki nekk waaye daal la nekk ca futuxaatul makkiye moom du loolu aqada alxalaaiqu fi lilahi aqaidan wa ana shahidtu ma taqaduhu wa ana shahidtu jamia maataqaduhu moo fa nekk léegi nag ñu xool shuhud muctaqadaat nit ñi mooy lan loolu beneen débat la dama bëgg rek nga xam ne bu fekkee da ngay roy ci say sëriñ nar ngaa sosal tasawuf sos yu bari yoo xam ne kenn du ko mën a régler parce que ñoom la wax loolu nekkul ci téere yi waaw eh, muy ibnu taymiya muy keneen ñoo ci yem <clears throat> koo ci gis rek mën naa sosal tasawuf sos yi ne weng yoo xam ne maanaam kenn du ko mën a kenn du ko mën a weddi ne lii aw sos la te amul benn téere ci téere boo xam ne mën nañ ko fa génne bokk na ca li ñu wax ne <clears throat> kon li ma bëgg a wax mooy li ñu gëm xëy na bañ a guddal audio bi li ñu gëm te mooy wax wahdatu wujud ñoom loolu amul ci tasawuf gëmuñu ko léegi nag nañ song xissa bii ñu nekk nii pour ñu xam fan la dëgg ji féete waaye li ñu gëm ñoom gëm-gëmu kéeféer la ñu ngi koy taqal tasawuf nag waaye ace ñu dem ca ba mu leer nag barakallahu fiik sayxuna jalil Moodu Kama Thiaw macha allah waa xanaa ñu lay fàttali rek ne bu ñu génn page bii ñuy waxtaane lépp loo xam ne lu ñu war a waxtaanee la incha allah buñ ci yeggee dinañ ko waxtaane waaye tey daal ñu ngi yem ci page bii nii nañu bañ a dugg ci tasawuf ak ahlu sunna ak siyaage ci aju yooyu moom nañ ci bañ lu ñu wax rek ci xam-xam insha allahu rabbi euh, su ko defee am na solo ñu ñëw ci ki nga xamante ni nii mooy euh, Cheikh Omar mbay ok asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu waaw Seydou Omar Mbaye bu ko defee xam naa déglu nga audio Oustaz Modou Kama bi waaye yi nga xam ne wax na ko nag laalul ak ci débat bi dara ñu ngi lay ñaan boo ñëwee moom bu ci tontu su ko defee ñu wax ci débat bi rek waaw Seydou Omar yow euh, wax jii nga xam ne mun ci taqdisul asxaas euh, da ngay saxal ne waxi sufiyanke la wala da ngay saxal ne waxi docteur Ahmed Lo la euh, waaw Serigne man damay saxal ne wax ji na al amaanatul ilmiya muy li nga xam ne wóoru ci xam-xam loolu la laaj moom jëfandikoo na ko ana nu mu ko jëfandikoo mooy moom waxoon na bi muy bind téere bi ci page bi nga xam ne mooy page dix-neuf dafa leera doon du am solo ndax dafa waxoon ne walam anqul min masdarin wasitin illa ida kaana al masdaru al asilu mafqudan aw maxtuutan walam yumkin ni al wusulu ilayhi nee na léeg-léeg dinaa dem ca téere ba directement toxalee fa waaye léeg-léeg ma toxalee ci ku toxalee ca téere ba nga xam ne moom mooy ndey ja nee na nag loola euh, ay mbir mën naa tax ma def ko amaana téere ba ndey ja dafay nekkatul amaana dañ koo muulul euh, nee na xataa amaana dañ koo bind ci làkk boo xam ne faxmuma làkk wa te sax su loola xewee bu fekkee ne am na tarjama am na fu ñu ko leeral danaa fexe ba jëli ko daal di ko indi léegi nag bi mu ñëwee fii mu ne ñu wax ji mi ngi ci ñetti téere yooyu nga xam ne mooy téere ibn taymiya yi waaye taxut gars yi doy loolu la ñu ne déedéet ibn taymiya téeréem yi téere la yoo xam ne du masdar suufi maanaam du référence sufiyaan ki ñu ne leen loolu loolu ngeen bëgg a exam euh, borom téere bi loola moom leeraloon na ko ba noppi kon bu njëbo jàll ci leneen léegi nag mu des nag ñu war a argumenté ne lii mu ngi ci téere ibnu taymiya yi dellu nañ ca béréb yam wax fekk nañ ko fa ñu ne amati nañ beneen problème ñu ne problème bu ngeen am ñu ne ah ñun kat liñ fekk foofu mooy waxaddatani siqatu ku wóor nettalil nañu waaye ñu ne leen léegi bu ngeen jotee ki nga xam ne moo ko nettalil ibnu taymiya léegi su boobaa lan mooy doon seen taxawaay ñu ne kooku lañ bëgg a xam kooka alhamdulillah xam nañ mooy kan ibnu taymiya waxal nañu ko ba mu leer bi mu waxee ne waxaddatani kamaalu diinil maraaxi Kamaalu diinil Maraaxi moo ko nettal Ibn Taymiya loolu mu ngi ci euh, téeréem bi nga xam ne mooy euh, Majmuu Fatawa juzu saani bi ci page bi nga xam ne mooy deux cent quarante cinq fa la nekk. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. macha allah. Euh, Cheikh Modou Kama su ko defee di bu fekkee déglu nga audio si Omar Mbaye bi am nga ñaari audio trois minutes ngir tontu ci ñaari audio yi nii incha allah. kon. Kamaaluddin Almaraaxi moomu li yéeme ci mbir mi mooy moom ab sufiyanke la te moom moo nettali ne moom Kamaaluddin Almaraaxi moo nettali comme Ibnu Taymiya ni mu ñu ko nettali le nee na wa haddathani al cheikhu al aarifu al cheikhu al aalimu al aarifu kamalu diinil maraaqi cheikhu zamanihi annahu lamma qadima wa balagahu kalaamu haulaai fi tawxid qaala qara'tu ala alafifi tilmisaani min kalaamihi cheyan fa raaytuhu muxaalifan lilkitaabi wassunna fa lamma dakartu dalika lahu qaala alqur'anu laysa fihi tawxid bal alqur'anu kulluhu shirk wa man ittaba alqur'ana lam yasil ila tawxid fa qultu ba affaire bi jeex dafa ne sëriñ bu baax boobu muy kamaalu diinil maraaqi nga xam ne mooy sëriñu jamono loolu nag boo ko déggee tazkiya la moo ma nettalil ne moom moo jàng ci afifi diin ak tilmisaani dara ci seen wax yi nee na ma gis ne wax ju dafa uteeg alquran ak sunna ma ne ko ah lii de daa uteeg alquran ak sunna mu ne ah alquran tawxid nekkut fa di alquran yëpp shirk la ku topp alquran doo yegg ci tawxid kon kii moo nettalil ibnu taymiya wax ci léegi nag xatta xadiisu yonent bi alayhi salaatu wasalaam nii lay saxe mooy dañuy indi ab sanat dama naan diw ci laa déggee diw moo ma déggee ci diw diw mi déggee ci diw léegi ibnu taymiya rahimahullahu taala moom moo wax ne dafa déggee ci kamaalu diin almaraaxi kamaalu diin almaraaxi moo wax ne moo dégg noppam ak nopp tilmisaan yi fi ne nag wax ji moom pour weddi ko benn ci ñaari anam rek les ko mën a weddee benn anam bi mooy nga xadxu ci kamaalu diin mi nga ne kamaalu diin mii kat nit la koo xam ne daanul wax dëgg su boobaa ñu daal di la nangul ne kon moom daanul wax dëgg kon xissa bi waree su ko jëlee si moom loolu du problème wala boog nga ne Kamaluddin mi mosta gisante mosta daje ak Ibnu Taymiya wala mosta daje ak Tilmisaani te ñaar yi yëpp amul ci benn boo xam ne mënees na ko wax amul ci benn boo xam ne mënees na ko wax daje na ak Ibnu Taymiya daje na ak Tilmisaani te nit la koo xam ne boroom xam-xam ne dañ koo tazkiya dañ koo sellal wax ne ku baax la ku jub la taraajim yi ko tarjama yëpp loolu nga fay fekk Cheikh Modou Kama day def ñaari audio trois minutes yow itam nga def ñaari audio yu trois minutes incha allah kon su ko defee mu mel ne li ñuy njëkk a tontu mooy wax ji wax ne borom taqdisul ashxaas moo ko wax ci euh, page dix-neuf wala yu mel noonu ci ne duma toxalee lu dul ci sufiyanke yi ci seen bopp loolu nag manhaj bu baax la maanaam booy tontu ay nit nga dem ci seeni cosaan ci seeni masdar toxale fa kenn wërta toxalee ci keneen kuy ŋàññi léegi nag ba mu ñu waxee lool nag ñu bég lool kontaan mu ne nag léeg-léeg du ma gis masdar bi duma gis masdar bi nga xam mooy masdar asil bi damay toxalee ci koo xam ne dafa dox ci diggante bi wala boog masdar bu dox ci diggante bi masdar wasil léegi masdar wasit bi mooy lan ak lan ngay toxal ba jël ko ci diggante bi est-ce que xikaaya bii ñu nettali dafa nekk ci benn téere suufiyanke boo xam dañ ne téere ba di mafqud la loolu amul est-ce que dafa nekk ci euh, benn téere boo xam ne dañ ko bind ci beneen làkk loolu amul est-ce que dafa nekk ci téere boo xam ne am na waaye moom jotewu ca loolu tamit amul est-ce que daf koo gis ci menn mbindum tilimsaani loolu amul lan moo am mooy xisa bi nettali la nettali du mas de nettali la benn waaye ne maa ko gis loolu rek la loolu nag bokkut ak la mu doon liir kon na génn foofu ñaareelu mbir bi kon fii nettali buñ nettali taqal ko benn waay koo xam ne ci tasawuf la bokk ñu koy wax afifu diin ak tilimsaani li waroon am ci ndorteel li mooy ñu xamle kan mooy afifu diini tilimsaan yi ba pare loolu moo waroon a am mais comme tëb nañ ko man itam dinaa ko tëb waaye waajoon naa loolu afifu diini tilimsaan yi ci biir téere yi lan lañ wax ci moom waaw lan lañ wax ci moom ñu xool ba xam kooku est-ce que mënees na ko tuumaal lu ni mel wala déet benn téere yi tilimsaan yi ci boppam lan lañ ci mën a am ñu ne ah ñun de mën nañoo am téere bu ñuy wax manaziru saairin am na fi ñu ne manaazilu saa'ilin est-ce ku ko liir di nga ci gis muy wone ne waa jii de moom daanaka moom wax du maam dafa gëm ne miir bi yàlla lépp ya kalbu al kalbu wal xinziir wal xamala nangam nangam yëpp kii la est-ce mën nañ ko faa gis duñ fa gis loolu tawxiid lañ fay gis turu yàlla ye mu koy mu koy rafetal ak di wax ci nit ki dafa war a daw yàlla xaraamal ak yu ni mel loolu lañuy gis ci téere moom tilim saani te loolu wuti nag nettali bi te téere bi téere bu wér la jóge ci moom nettali bi nag kan moo ko wax des na benn ibnu yaa ko wax te bu waxoon ci tasawuf lu ñaaw kenn du ko jële noonu loolu moom <laughs> na tege ne waaw bu waxee ne keneen ne ko nettali dañoo wër a wëri keneen kooka kon ñun amuñu ibnu taymiya wax de ki nettali kam ne moo jële sax kooko dee sa wër wër mooy kan lii mooy asaasu mbir bi ba pare buñ ko ci wëree nag duñ ci gis loo mën a commentaire ne fa haulaay naas loolu mënut a nekk yow kay da nga naan kon xisa bi naa ko teg nee ma ñëw tey nag dafay bis boo xam ne ñëw ci ibnu taymiya lim mën a waxal tasawuf te boo ko seetee du nekk doona maam ay njuumte la ak ay tuumalaate yu amul benn asaas layal loola am naa ci lu bari bu fekkoon ci ibnu taymiya rek la ñu war a waxtaane loolu mën naa la indil ay wax yoo xam ne dara amu ci te ko tuumal ay nit loolu moom am naa ci lu bari mais loolu taxumaa jóg tey te loolu itam taxu a jóg debaa bi waaye tilim saani ci boppam moom am nañ ay téeréem yoo xam ne mi ngi nii téere bii ma wàccee moo ko taalif manazilu saairin ñu ne manazilu saairin bii rek ndax wér na ne moo ko taalif ñu xool xool wenn wér na ne moo ko taalif manazilu saa'ilin lan la ci waxtaane tawxid ak yàlla ak comme ni ko ibnu ibnul qayim sharxawee moom itam noonu la ko sharxawee moom tilimsaani te sharxa ba itam doo ca gis looy xamee ne kii kalbu ak xinziir ak yëpp la def yàlla de loolu amul ci téere ba waaw koo xam ne am nga téere masalan sëñ Touba ñu koy tuumaal ne sëñ daa gëm nangam loo xam ne lu bon la wala alaaji Malik daa gëm nangam loo xam ne lu bon la nga xool ay téereem gisoo ca loola te lële ab nettali lekk nettali képp la nooy def léegi da ngay sànni téere yi daati gëm nettali ba lu waa ji wir wir kenn du ko jël bàyyi lii mu bind lii ba ko fi foofa téere bi ci boppam am na xira maanaam liir nañ ko ci kanamam mu joxe ci ijaaza kam doon jox ijaaza lii la ko bindal ne ko ne ijaazaal naa ko pour mu riwaayaal lépp loo xam ne jóge na ci man te wér moo xam wesar la wala way wa ma waafaqa shariata almutahara mimma nusiba ila ismi kooku gëm na ne tawxid ay ay waxam mooy mooy waxi tawxid gëm na ne alquran sharia mooy lan sharia mooy alquran ak sunna mu ne lépp lu dëppoog alquran sunna nga taq ñu taqale ko ak sama tur xamal ne loola kon mën nga koo jël kon lam la bëgg a wax mooy loo gis ñu ne leneen la lu dul alxuraan du sunna xamal ne sori naa loola te lii kat téeréem la boo xam ne mi ngi ko ijaazaale bi mu nekkee Dimashq li ma mës a Omar Mbay wax ko mooy xissa bi fan la ame xissa bi Dimashq rek la mën a amee ndax Dimashq la Tilimsaani nekk Dimashq la Ibnu Taymi nekk Dimashq la euh, afi Kamaalu Diinil Maraaxi nekkoon te Dimashq nag la defee ijaaza bi de boo koy xool six cent soixante dix la def ijaaza bi six cent soixante dix la def ijaaza bi nga naam li teemu faatu bareetul ci la def ijaaza bii kon nag kii mëneesu la bàyyi lu mu wax nii dem di jëli nettali léegi nag ma défiwee défiyewaat leneen mooy nettali bi wérul nettali bi xaaju la wér léegi nag li war a ñëw mooy moom Omar Mbaye mu indi lim jàpp ne moo tax nett li bi wér nett li bi fan la mën a wére ak naka la wére na ko indi maa ngi koy xaar te bu ñëwee ma damm ko macha allah barakallahu fiik Cheikh Modou Kama macha allah am na solo waaw Seydou Omar mbay déglu nga audio Cheikh Modou Kama yi looy tontu rawatina nag audio bii ma teg sama loxo dafa mel ni lim fi jotoon a lal ci mbiru nett li boobu noonu ci Kamaalu di mu nga xam ne moom la ñu wax ne moom noo jëlee ci Tëlem Saani euh, euh, mu ñëw nettali ko nga xamante ne ni mooy Ibnu Taymiya moom dafa bu weddi loolu dañ ne rek nit moo nettali dafa mel ni kon lay wi moom des naa dëgër looy tontu ci loolu. waaw kay salaamaaleykum wa rahmatulah Cheikh Mouride ma xam naa audio bi moom fi mu commencé ba fi mu jeexee dafa mel ni bokkul ci debaa bi kon audio bi moom euh, nañ ko nañ ko. nañ ko tegee ne tontu ci li nga xam ne moo bokk ci débat bi incha allah. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah sëñ bi maa ngi ziar ma jooyanti tuuti ci sa wax ji rek xam naa da nga juum mooy man waxuma ne Tilimsaani euh, Ibnu Taymiya dafa nettali rek waaye tuddul kii déedéet ci man Tilimsaani bi Ibnu Taymiya nettali na ko onze fois ci biir téeréem yi. sept fois nettali na ko ci biir majmuatu majmuul fatawa kon xam naa bu baax affaire bi nu mu demee am na ci côté boo xam dana xaddasani siqa wala xaka siqaatu nangam am na yoo xam ne du am loolu am na boo xam ne day am xaddasani eh, kamaalu diinil maraaxi d'accord naa ci loolu lépp d'accord naa ci weddiwu ma ay tur loolu man dama saxal tur bi léegi nag ñu dem na indi lii wane ne wér na lii wane ne sax tilimsaani gis na ku ñuy wax kamaalu diinil maraax yi ak mu xamal ñu kamaalu diinil maraax mooy kan ndax kamaalu diin du tur maraax yi itam du tur tur wala la lan mooy aw turam ak lu ko jokkale tilimsaani loolu la war a indi maa ngi jégalu ci audio bi ma jokk bi ma yokk mais li nga wax moo tax ma dugal ko Eh, salaamaaleykum wa rahmatullah waaw sëriñ Babacar léegi man damay sàkku pour ma mën a tontu audio yi yi wax yi ci nekk yëpp damay sàkku ngeen may ma ñetti audio yi trois minutes après su ma paree moom su bëggee dajji li ma wax amul problème mais may leen ma ñetti audio yoo xam ne audio bu nekk trois minutes lay doon incha allah. ok asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Cheikh Bourou jërëjëf ci jubbanti bu am solo boobu waaw Seydou Omar Mbaye xam naa defal ñetti audio rek comme moom moom nga seqal débat bi te moom nanguwul pour ñetti ojo yi amul problème léegi defal defal defal ñaari ñaari audio rek incha allah yu trois minutes su ko defee moom itam mu def ñaari audio yu trois minutes ndax fu nekk nii temps yi mu ngi dem te am na ñoo xam ne ñu ngi leen di topp te ñoom tamit bëgg nañu indi seen seen rayu ci ci ci paas yi incha allah. waaw euh, fi may dalee rek mooy faradiyaat yi nga teg noonu. Euh, ci li nga xam ne moom la cheikh bi waxoon ne day toxalee ci ku toxal su fekkee ñett yële mu teg amul nga junjaale ne yow téere bi wala xissa boobu ndax daa am beneen téere bu mu nekk aha kay xissa baam ci beneen téere di ko firndeel di firndeel lii ibnu taymiya nettali mu di ko firndeel kaay fii ci addurarul kaamila fi ayaanil miati saamina bi muy tarjamaal Kamaaluddin al-Maraaxi bi mu koy tarjamaal euh, dafa ne mooy Omar ibni Ilyas ibni Yunus al-Maraaxi Abul Qaasim as-Suufi ki nettali wax ji ibnu taymiya moo tudd noonu kon ab sufiyanke la mu wax euh, taarixu juddom ak yooyu ba noppi am lu am solo lu mu ca teg mooy dafa jëlee ci alimaam yi gannaaw boo xamee ne wax na ci moom wax yoo xam ne yu yu rafet la dafa jëlee ci al imam dahabi imam dahabi mu ne euh, kaana cheikhan xasanan saalihan xayiran lahu xadun min al ishtigal góor la woon goo xam ne ku rafet la woon ku baax la woon ku amoon ak góorgóorlu ci sàkku xam-xam la mu daal di ne waxakaa lana annahu jaalasa qawaaja nasiruddin ak tuusi toog naa ku ñox nasiruddin ak tuusi wa xadara durusa afif tilmisaani teewee na durusu afif التلمساني فحكى لي أنه قرأ عليه في المواقف للنفر فجاء موضع يخالف الشرع فحاقبته عليه nee na bis da doon jàng téere bi ñuy wax mawaqif li nafri am ci béréb boo xam ne dafa wuteeg sharia nee na ma enquête ko topp ko sonnal ko ci mu ne ma bu fekkee da ngaa bëgg in kunta turidu an taarifa ilma alqawmi fa xudi lchara walkitaba wa sunna fa luffaha watraha qaala fa maqatu wanqataatu anhu min dalika alyawm mu ne ma bu dee nag danga bëgg xam-xam yi gaaya ñu jublu ci gaa yi mooy euh, wahdatul wujudi da ngay jël alquran ak sunna ak sharia nga lem ko ci morso nga sànni ko ci mbalit mi kamalu diin ne loolu moom a xaajaleeg afisu diini tilmisaani ndax dippi keroog laa ko bañ kon xissa bi ba tey da koy fekk foofu euh, leneen li nga wax nag ne euh, ñoom ñëpp fële lañ nekkoon dafa mel ni audio bi. léegi pour ñu njëkkante ak temps bi est-ce que du ma def audio bu mu wàccee man ma déglu ko tontu ko ndax boo bëggee déglu ñetti audio yi dañuy xaar lu yàgg ko maanaam audio bu mu wàccee ma déglu li wax ma tontu ci di ko xaaraat ci beneen audio bi. Euh, leneen li nga wax ne ñoom ñëpp misra lañ nekkoon euh, dafa mel ni xaw ma ñoom ñëpp nga ne dimashqa lañ nekkoon. dimashqa nga ne fa la afifiddin nekkoon fa la ibnu taymiya nekkoon fa la uh, kamaluddin al maraaxi nekkoon sëñ bi juum nga de juum nga bu baax a baax kaay nga delsiwaat fii ci téere bii di addurarul kaamina fi ayaanil miati saamina uh, dafa bi muy tarjamaal kamaluddin mi nee na wa jaawara qabla dalika bilqudsi thalathina sana def na mujaawara fanweeri at ca misra eh, ci quds muy baytul maqdis wa aqaama qablaha bi misra xamsa ashrata sana sax na ca misra lu jiitu loola fukki at juróom yaa ngi dégg bu baax kon kii nekkoon na misra ndax loolu wala yow loolu xamuloo ko xamoo na nekkoon na misra xanaa eh, war ngay gis boobu ibnu taymiya ne moom nekkoon na misra yàgg na fa tëj nañ ko fa ay kaso am na fa ay duruus yu baree bari ba téereem bii ñuy wax euh, muxtasaru fatawa al misriya xanaa téere boobu gis nga ko loolu kay lam lay firndeel mooy ibnu taymiya moom it nekkoon na foofa afifi diine tilmisaani fekkee jàng nga <laughs> taarixam kay war ngaa xam ne nekkoon na misra moom itam nekkoon na misra kon ñii fi ñu mën a dajee dafa bari bu dee baytul maqdis la foofu ci ardu Sham la bokk bu dee Misra la ñoom ñett yépp ku nekk du dugg na Misra ba li sax mooy Afifu diini Tilmisaani lii waaji di nettali ci moom nii ne dafa doon teewee ay darsum comme ni ko Ibnu Hajar waxee si durarul kaamina loolu mu ngi nekkoon fee nga xam ne moom mooy Misra ndax Afifu diini Tilmisaani daan na fa lal ay dars waaye dafa mel ni yow euh, liiruloo jotuloo liir Euh, biographie ki nga xam ne moom mooy afifu diini tilmisaani ndax ni ko noonu di nga xam ne nekkoon na misra te daan na fa am ay darsu te euh, kii nga xam ne moom mooy kamalu diinil maraaxi moom itam dafa nekkoon misra lu lu jiitu muy ñëw Quds muy baytil maqdis am fa fukki at ak juróom comme ni ko alxaafis ibne xajar rahimahullahu taala waxee léegi nag li ma lay daanelee mooy gis nga nettali fii tey réewum senegal mii ñaata nit ñoo fiy toog ba mu yàgg kenn ne sëñ Tuubaa nee na nangam kenn ne Alaaji Maalik nee na nangam kenn ne diw nee na ko a ko nettalil ba mu àgg ci kooka mu wax dara loo xam ne boo demee ca téeréem ya moom doo ko fa fekk te sax man danaa la indil yow li ngay wax noonu daa la ko indil lu lay firndeel na la tilmisaan da doon wax wax tul wujuud da ko doon wax loolu dinaa la ko indil léegi ci kanam mais li ma la bëgg a wax mooy lii pour nga yàq xissa bi moom lenn nga mën a def benn nga ne kamaalu diinil maraax yi du nit ku màndu du nit ku jub waxam waree su koo gëm wala benn nga ne mosula gisee ak ibnu mosul a gisee ak afifi tilmisaani te loolu da koy argumenté da ngay indi ay masdar yu koy wane man wan naa la luy wane ne ñoom dajee nañ léegi nag pour jëkkalante ak waxtu wi euh, dañuy tontu ci li wax maanaam faamu ngeen euh, jàngataat docteur loolu li mu wax ci page dix li wax ci page dix mooy buy naqlu du tëb rek gis benn téere nii ci tasawuf di ca naqlu déedéet ca seen masaadir yi nga xam ne aksara shuyuan wantisharan ca yooya te te ñu eetimaat ko ca yooya lay kii waaye yi yi nga xam ne tamit ay yu yamamaay la ci suuf yu mujj yi yooyu itam du ko bàyyi du ko bàyyi dana ci laal tuuti waaye ca yële daal lay déparé yële nag lay song diggante ba su ci gisul maanaam su fekkee mënul accéder ca foofa day naqloo ku nekk ci diggante bi koo xam ne nee na masalan ibnu arabi nee na ca futuxaat mu jël ko ca kooka ndax mun ta àgg ca futuxaat masalan mais lii lépp waxu ko ci yeneen masdar de masdaru tasawuf ci lay sukkandiku la bëgg a wax waaye masdar wasit du caageen day nekk masdar beneen buy naqlu tasawuf mu jëli ko loolu ab junj la woon ci affaire bi Euh, ngeen ngeen ngeen xoolaat affaire bi bu baax a baax a baax dégg nga léegi nag ñu ñëw ci li nga wax nee nga am na ci beneen téere bu mu am masalan ibnu taymiya indi na ko loolu xam naa ko waaye ibnu taymiya indi ko nag day tax sax ma dàq ko léegi nag faaw nga wuti keneen ibnu taymiya nee na kamaalu diinil maraaxi moo ko indi wax naa la kan mooy kamaalu diinil maraaxi nga indil ma tarjamaam ci addurar alkaamila fi ayaanil miati saamina ñu seetlu leen nee na Omar Ilyas mooy kamaalu diinil maraaxi moom nag suufiyanke la mën naa nekk moom nag mi ngi gane àdduna soixante six cent quarante trois ci la gane àdduna waaw Azerbaïdjan la gane àdduna te eh, maanaam kële nekkul Azerbaïdjan eh, nu mu tuddati Tilimsaani nekkul Azerbaïdjan Tilimsaani mi ngi Dimashq kon faaw waa ji ñëw Dimashq kañ la ñëw Dimashq nag mu ne qadima Dimashq sanata maanaam sab'miya wa tisa wa ishrin maanaam sept cent vingt neuf la ñëw Dimashq sept cent vingt neuf fekk na Tilimsaani faatu ba am lu mat fanweeri at daanaka Tilimsaani mi ngi faatu boo ko xamul Omar Mbaye six cent quatre-vingt-dix six cent quatre-vingt-dix kii mi ngi ñëw Dimashq sept cent vingt neuf te bi muy ñëw Dimashq am na juróom-ñett fukki at ak lu teg kooka ma ngay jëm ca naax lañ daan wax kooka eh, eh, dafa dafa am axara ba kenn du jël ay waxam léegi kooka daanaka daloon na ko te ba muy ñëw sax fekk na tilim saani faatu na ba mu am fanweeri at loolu boole ko ci yi nga yi nga xamul woon nga boole ko ci loola léegi nag bu fekkee ne dañuy gëm ne nit mën naa faatu fanweeri at mu ñëwaat xuloo feeg nit bañ man ko caa takfiir nga wax ma loolu waaw bu dee li nga wax nag ne tilmisaan yi mënee su ko gisal wax joo xam ne da cay wax waxdatul wujud ah kay loolu bari na trop demal ci charx fusuusul xikam danaa la dugalal page bi léegi mu ngi nekk cent neuf bi mu toppee sëriñam bi nga xam ne mooy kuy waxdatul wujud muy ibnu arabi nga xam ne bépp xeetu weddi yàlla wax na ko ci fusuus bi bépp xeetu weddi yàlla paas bi ma la jox nii maa ngi la koy ñëw dugalal dafa dafa doon firi nit yonent yàlla nuux ñi bi leen borom bi tabaraka wa taala labalee ibnu arabi weddi ne lam leen def noona du labal tilmisaani ñëw dëggal ko ne summa axada yuazimu aqdaara man qiila fihim mimma xatiaatihim uxriqu te mooy nitu noox ñi mu ne anil xatiati bil xatwati lati xatta bihim ila buxbuxati bahri bahri lfanaai fi llah fa garaqu fi dalika albaxar fa xasala lahum alilmu billahi taala min min ayni alxayaati fiihi fa utqilu naaran fi ayni almaai wa innama summiya annaaru aynu almaai li anna alshuhuda yaxtadi dalika paas bi waxi tilmisaani laa lay waxal moom moo wax ne nit yont yàlla nuux ña nekkul na yàlla da leen labal ci am bugalum safara de déedéet ci géeju fanaa u jeex ci yàlla si la leen labal moo tax bañ duggee ca géej gi rek dañoo far nekk ñoo xam ne ni ñu xam yàlla lañ dañoo far nekk ñoo xam ne ñu xam yàlla lañ mu daal di nettali ne nafar yi dafa wax ne yàlla damaa taxawal awqafani fi naari fa raaytu jiimal jannati jiimal jahannam yàlla daf maa taxawal ci safara ma gis jiimu aljana muy jiimu jahannam fa raaytu maa bihi yuazabu ayna maa bihi yanaamu wala yunaam dégg na mu ne ma gis ne li yàlla subhanahu wa taala di mbugalee loola mooy li nga xam ne ni moom lay xéewalee waaye li ma am euh, soxla dëgg-dëgg mooy tilmisaani dafa xam ne li mu wax ni ëpp na mu daanelee wax ji lii mu ne fa haada al maana yajuuzu an yuxmala alayhi fi madhabi suufiyati qawluhu taala mimma qati'aatim uxriqu fa udqilu naara wa laysa dalika bi jaizin ala madhabi al ulamaai radiallahu anhum mu ne wali min jumlati qasidatin fi haada al maana nee na lii moom di ko wax di wax nit yonent yàlla noox ñi yàlla da leen labal ci am ndox sa lañ doxee xam yàlla yàlla nekku na da leen mbugal ak nàngam nangam mu ne lii moom ci sharia moom waree su koo wax waaye bu dee ci madabu waa tasawuf su boobaa wax di dara nekku ci démb itam dégg naa la nga ne euh, taalibib tilimsaani la woon moom moom moom moom kamaalu diinin maraaxi mi loolu amul waaye loolu tamit bokk ci débat benn ndax waxoo ko fii waaye dama ko bëgg a jooyantiwaat rek kii taalibib baydaawi yi ba nga xam ne mooy borom tafsir ba asra anwaaru tawil xaw ma asraaru tawil wa anwaaru tanzil xaw ma nu mu tuddee tafsiru baydaawi baydaawi mooy sëriñu Maraghimi Kamaluddin Maraghimi waaye nag ci tarjama bii moom mënu cee gisanteeg waa ji muy benn ñaareel ba tarjama yi dafa wax ne zahabi wax na ci mujamam mujamam mooy lan mujamu suyuux bu dahabi mujamu suyuux bu dahabi tarjama kamaalu diin maraaxi amu ci léegi war ngaa lijjanti fan la ko amee ñetteel bi ci li ko ibnu taymiya nett li yépp daf ne fusuusul xikam lañ ñëw do fekk ko ma koy jàngale fii nag ci xikaaya bi daf ne mawaaqifu nafri moom la doon jàngale loola itam itiraab boobu nga lijjanti ko ma door a ñëw ci deuxième audio bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu xam naa fi mu nekk nii nag fokk dañuy taxaw ci njombaxtal li ndax buñ ko toppee nii moom mën nañ fay nekk ba fajar ah, te temps fi mu dem na une heure temps bu teg léegi li nga xam ne fa lañ bëgg taxaw fi mu nekk nii mooy Cheikh Modou wax ji ñiy waxtaanee nii ndax da ngay saxal ne waxi suufiyanke la kenn ci suufiyanke yi wala da nga koy dàq waaw Cheikh ci bëgg a doon rek mooy bu fekkee wax ji la ñi ko nettali maanaam ki ko wax ko ñoom ay suufiyanke lañ bu fekkee ñoom ay suufiyanke lañ kon dëppoo nañ ci wax jii du waxi docteur Ahmed du waxi Ibnu Taymiya dañ koo toxal xam nga démb da nga ne xadima ma ma démb da ne ñëw na Dimashq ñëw na Dimashq bàyyi ci xel démb yaa ne ñëw na Dimashq ndax Ibnu Taymiya Dimashq la nekkoon xanaa léegi nga xam ne nekkoon na Misra yow yaa ne Dimashq la ñëw moom Kamaluddin yi ndax lan eh, kële nga xam ne mooy eh, Ibnu Taymiya Dimashq la nekkoon yow yaa wax lii léegi ngay door a xam ne mosoon nañoo tase Égypte te mosoon nañoo tase Égypte xam nga kenn du ko wax noonu sànni da nga koy layal lan mooy wane ne Égypte lañ tasit lan mooy wane ne tilimsaan yi ba mu nekkee Égypte daa am lu mu gëmoon ak gëm-gëm boobu lan moo mbir mi du noonu di sëñ bi tilimsaan yi fan wahdatul wujud gi ngay wax nii fan la ko dugge fan la ko nettalee waaw tilimsaan yi mi nga xam ne moom mooy jàngale ci Dimashq di wax lu wuuteeg waxdatul wujud di ko dajj kooku mooy ka waxoon waxdatul wujud ci Égypte moo nekkaat nii même bu doon looloo bu doon looloo am bu doon looloo am fan la ko war fan lan lañ war a jël lu mujj wala lu jëkk te bàyyi xel gëstukat lañuy wax gëstu gëstu mooy nga dem xooli ba xam wér na wala wérut wër na wër a nag day laaj méngale koog ay waxam yi nga xam yow waaye Ahmed loo sax xamu ci dara ndax wax na ci téere bi ne benn téere ibnu tilimsaani kenn tabaxu ko kon ci fii eh, waxu mujamu mujamu suyuux soxla naa ko nga indil ma page bi nga xam ne ca la loola nekk loola muy benn bii nag mawaqifu nafri bële fusuusul xikam ban moo ci Égypte ak bay Dimashq war nga koo leeral yow xam nga xissa bi daa jaxasoo ci yow ba léegi mënutu mënu ko lijjanti dañ naan la téere dàngam la doon la doon jàngale jékki-jékki ñun la téere ñàngam la doon jàngale te kenn nay wax de muy maraas yi ñaari nettali yépp wér na naka la wéree gisante nañ yaa indi sa tarjama tarjama gi loola mënta um, nekk mun ñoo gisante léegi nag bàyyil xel ne lamma xadima la wax ci ci ci ibnu taymiya ba mu koy nettali ba muy nettali waxu maraaxi yi daf ne wa haddasani alcheikhu alaalimu alaarifu kamaluddin almaraaxi cheikhu zamanihi annahu lamma qadima qadima e qadima fan ñëw fan bi mu ñëwee fan bi mu ñëwee égypte wa balagahu kalaamu haulaay kon Égypte lañ lañ dégg woon wàllu wax du wujub la Dimashq ak bu lee kon xaraatu kon du woon ci Égypte la ko déggee ndax moom dafa ñëw rek bi mu ñëwee la wax loola kon fan la déggee xisa bi euh, waaw euh, Sëriñ Babacar <coughs> léegi dama bëgg a laaj Moodu Kama Kew dama ko bëgg a jubale laaj bi ndax moom xam na ne afifu diini tilmisaani dafa nekkoon misra kamaalu diinil yi dafa nekkoon misra ibnu taymiya nekk na misra ndax moom xam na maalumaat yi wala xamu ko waaw dama bëgg nga nga nga jubaleel ma ko laaj boobu mu tontu ma ko daal euh, waaw sëriñ bi damay leeral benn mbir wax pour nga mën cee sukkandiku ba mën caa isdaar ab benn atte nga ne ñii dara araamul ci ñoom bala ngaa war a mën a commentaire loolu day fekk wax ji daa wér ba pare day fekk wax ji ci gëstukat nag mënoo fekk nit ku bind lu baax ñu nettalil ko ay saaga nga jël saaga yi bàyyi liñ bind loolu moom gëstu nangu ko beneen bi buñ ne laa diwa ko wax waroon ngaa gëstu fan la loolu amee est-ce que ñoom ñaar ñi ci tarjama yi nekk ci téere yi mënuñoo daje tarjama yi nekk ci téere yi soixante et ci la ibnu ci la Tilimsaani jóge Égypte ñëw Dimashq soixante et ci la Ibnu Taymiya judd maanaam Ibnu Taymiya bi muy judd at moomu la Tilimsaani ñëw ñëw Dimashq léegi waa ji moom quarante la gane àdduna ci Azerbaïdjan kañ la war a mën a ñëw Égypte kan kañ la mën a ñëw la war a mën a ñëw Égypte bay jàng ci borom yi xam-xam bay nangam ak nangam bu amee ñaar fukki at ci lay ñëw di werante ak borom xam-xam yi maanaam Omar Mbaye moo amul wenn lay wax mën naa teggi ne affaire bi Égypte la man mën naa saxal ne Égypte la wala mu teggi ne Dimashq la woon amu ko lamma qadima firil ba mu ñëwee fan bi mu ñëwee Égypte léegi bu fekkee dafa ñëw Égypte nettali dara loola du ci Égypte la amee kon loola amee na feneen lan lamma xadima kon xadima Saam ba mu ñëwee Saam ba mu ñëwee Dimashq la nettali dara ba mu ñëwee Saam ba ñëwee Saam la nettali loolu léegi nag kii ba muy ñëw Saam waaja faatu na ba pare waa ji faatu na léegi nga nit faatu fukki at nga ñëw nag eh, Dimashq ñu ne nangam ak nangam fekke na ko ibnu taymiya dafa taseeg tilim saa dafa taseeg kamaalu diini maraaxi kamaalu diin nettali ko benn mbir boo xam ne déggoon na ko fekke woon na tilim saa yi nangam ak loolu day laaj lay fan lañ dajante fan lañu daje salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaw macha allah Cheikh Modou Kama xam naa ñu dellusiwaat ci laaj bi rek ndax laaj boobu dafa am solo daanaka mën nañu wax ne bu ñu ko tontoo rek dañuy bëgg am résultat bu leer ci waxtaan wi mooy ñaar ñi ñu tudd ci wax ji di Tëlem Sani ak Kamaalu Diin ñoom ay sufiyanke lañ wala duñ ay sufiyanke bi yaa mooy sama laaj bi incha allah. dinaa sawar lool ci tontu loolu sëñ Omar Mbay Tilimsaani nekk na Égypte loolu man doo nga ko jàngal Tilimsaani nekk na Égypte loolu kenn du ma ko wax man doomam ju ñuy wax a Achabu Zarif xam naa mosoo ko dégg boo moytuwul waykat wi ci ñi dàq way la bokk Chabu Zarif Shamsuddin Muhammad lañ ko dégg kooku Égypte la juddoo mook Ibnu Taymiya doo wax de ak Ibnu Taymiya ñoo maase 661 ci la gane àdduna moom eh, doomi tilimsaani jooju di sàbbu zarif bam ganee àdduna nag ñu teg ca tuuti lu matul at la ibnu la la ñëw ak njabootam yépp ñëw dëkk si Dimashq Dimashq la siiwee siiwewul Égypte moom tilimsaani tilimsaani siiwewul Égypte Dimashq la siiwe loolu demal ci téere yi comme Dimashq la siiwe nag te tilim sa kamaalu diinil maraax yi ba muy nettali daf ne ba ma ñëwee ñu koy coow naan darsi yaag nangam ak ma ñëw na ngir laaj ko lii mooy li am de suhra boobu nga xam ne am na ko fan la ko amee Égypte amu ko Égypte mais ma ko amee fële ca euh, Dimashq foofu la gën a amee atu foofu la gën a amee succès foofu lañ ko gën a xamee foofu lañ ko gën a xame ka doon wax naan saay-saay la ab kàccoor na kooku jàngale na saxiixul buxaari yi kooku da daan tëral kooku nit ñëpp dañ ko fonkoon loolu moo nekk ci téere yi su fekkee da am ku la nettali leneen ca nag see boo nga sànni ko te xam ne loolu amul ci taarixam waaw eh, jàppal ne mi ngi gane àdduna six cent dix mi ngi faatu six cent quatre-vingt-dix ñëw na Égypte nag ba muy ñëw Égypte mën naa la wax kam àndaloon ak kam fa fekk kañ la jóge Égypte mën naa la ko wax ban doomam mu juddoo Égypte mën naa la ko wax kañ la dem Cham mën naa la ko wax kañ la faatoo Cham naa la ko kon man duñ ma jàngal fan la lim saa nekkoon waaye ba muy jóge Égypte nag boobu Ibn Taymiya judduwul wala day doog a juddu tilim saani xam naa ko tilim saani sufiyanke bu mag la xam naa ko tilim xam naa ko xam naa ay jaar-jaaram xam naa lu borom xam-xam yi wax ci moom ba ci zahabi ba ci abu sana mahmud ci taarixam ba ci eh, ibnu shakir ci fawaatul wafayaat dégg nga ba ci ibnu kathir ci eh, bidaaya wan nihaaya dégg nga ba ci yéneen téere yépp li ñu wax ci ibnu eh, tilimsaani en tant que ab sufiyanke tudd afifu diin doomam tudd shamsu diin muhammad kooku xam naa ko kamaalu diinil maraaxi xawma ko man waaye nag bu kenn nettalee dara ci moom am yeneeni nettali yoo xam ne safaan la nettali kooka lañuy dàq sànni ca àll ba surtout nag su fekkee ne li téere yi wax ci tarjamaam naan ñëw na barab sàngam bis boobu day fekk kële faatu ba noppi wax ja duñ ko mën a jël waaw wax ja duñ ko mën a jël lamma xadima moom xadima dimashq la ndax ba muy ñëw Égypte ibnu taymiya judduwul moom mën naa ñëw Égypte fekk fa tirim fekk fa ibnu taymiya loolu mënta nekk Dimashq lañ mën a fekkante ndax ñoom ñëpp Dimashq lañ teere ji ñoom ñëpp Dimashq lañ teere ji wax nañ ne bi muy ñëw Dimashq quatre-vingt et quelque la am léegi nag tilim saani laa xam léegi tilim saani bala li ma xam ci moom ci mbindam bala nga ko mën a tuumaat safaanu loola danga may wax lu leer nañ ndax lii mu bind safaanoo naag liñ koy nettalil te am na yeneen yeneeni nettali yoo xam ne ibnu imaad alxanbali nettali na ci shajaraatu zahab ne ku ñuy wax burhaanu diin al kutbi nee na dafa dugg ci maanaam nettali loo xam ne lu am solo la nit ku gëm yàlla nit ku foowewul yàlla nit ku nekkul ci caaxaan la nettalil benn xikaaye loolu mi ngi ci sajaraatu dahab wuute naag ñu naan lii wala lee wala laa kon nettali yi nga yi nga xam ne borom xam-xam yi sax wax nañ ko ci moom dafa juuyoo ak nettali waxuma la bindam de nettali yi nga xam ne borom xam wax nañ ko ci moom rek kaan imaman baarian fadilan dégg nga xasana xasana al ashra karim al axlaaq lahu xurma wa wajaha bi cheyin min saxiixi muslim an ibni salaah wa saxaawi léegi ñun la kooku saxiixu muslim yooyu mu doon jàngale fi mu doon daanaka nee na loolu loolu mooy lan kon tilimsaani laa nekk man tilimsaani boo ko bëggee toxal toxalal dara nettalil ko dara benn day fekk lool nekk ci mbind mi nekku ci mbind yi sax safaanu loola ja nekk ñaareel bi mooy borom xam-xam yeneen yi lañu nettali ci moom ci jukka ju rafet la ñu nettali ci moom ci sunnawu la ñu nettali ci moom ci yu baax bu ñuy nettali ku ko waxal safaan nag di naan wattahamahu fariqun lool la zirkili wax ci aalaam eh, eh, wa nusiba hada rajul ila azamil aqwal lool la ibnu kathir wax amul ku ko wax ni ne dañ ko daa am lu mu def dañ naan rek am na ñu ko tuumaal waaw tuuma yooyu moom balaa ñu koo jël day fekk mu ne mu am lu ko dooleel tuuma yi nag dafa safaanoog dundam safaanoog mbindam safaanoog nettali borom xam-xam yi ak naka la ko gëstukat di ñëw di ko gis ba cay commentaire waaw macha allah macha allah Cheikh Modou Kama ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci yitte ji macha allah ak baax bu yaatu bi nga xam ne def nga ko ngir mën a euh, jongante ci li nga xam ne xam-xam rek lañ ci soxla macha allah naka noonu Cheikh Omar Mbaye xam naa Cheikh Omar Mbaye euh, kii di Cheikh Modou Kama moom mu ne xam na Ilimsaani xam na ko ne ab sufiyanke la waaye Kamaalu diin moom la xamut Cheikh Omar Mbaye kan mooy Kamaalu diin xam naa bu ko defee yow mën nga ko boole sa audio bu mujj rek bu defee ñu daal di yëkkale jotaay bi incha allah. waaw mu nga kon xam naa ne su audio bi jékkee ngeen guddee ngeen jéggal ma ko ndox dama si résumé. Euh, li may delluwaat di wax rek mooy yéen waa tasawuf yi kenn bu mu leen nax xissa bi ñu gëm waxdatul wujud ñoom la concerné ku ko gëm rek yow la xissa bi concerné benn ñaareel bi ibnu taymiya moo wax wax ji docteur loo da ko bind ci téeréem yoonam nekku ci wax na fa fam ko fekk it ku ko bëgg demal seeti ko foofu ngeen ñëw ngeen ne wóoluwu leen Ibn Taymiya da koo sos dafa def nii dafa def nii parce que tuddul ki ko wax loolu moom ba ngeen ko léegi ñu tuddal leen ne Kamaalu Diinil Maraaxi moo ko wax ngeen toppati kooku muy seen mbokk di suufiyanke waaye moroomi suufiyanke mi wax ci moom ay wax yoo xam ne yu baax la ay wax yoo xam ne yu rafet la Suyuuti tarjamaan tarjamaan na ko moom Kamaalu Diinil Maraaxi ci xusnul muhaadara fi taarixi misra wal qahira mu doon koo xam ne wax yu rafet moom la wax ci moom muy Kamaaluddin al Maraaxi moom niki noonu xaafis ibnu xajar wax si moom wax yoo xam ne yu rafet la ak yeneen i téere yoo xam ne indiwuma ko ñu wax si moom wax yoo xam ne yu rafet la wane ne nit ku baax la léegi nag ab nettali boo ko bëggee jam da naan boroom daanul wax dëgg walla nga ne moo kiñ ko nettalil seen jokkoo mënul nekk manul ne mais bu dee ki nettali nettali bi ku wóor la ibnu taymiya ak euh, moom ak euh, Kamaluddin al-Maraghi dajee nañ ndax ibnu taymiya nee na moo ma ko waxal Kamaluddin al yi moom moo wax ne moo yoroon ab téere di jàng si tilmisaani tilmisaani di ko firil mu wax loo xam ne dafa uti ak sharia mu ne ko yow lii nga wax nii dafa uti ak sharia ci misaani tontu ko loolu te kat ndeke toone Modou Kama moom xamu doon bu njëkk ne euh, afifi til dafa nekkoon misra dajee fa kamaalu diine maraaxi ñu dajee fa ñoom ñaar ñëpp dañ faa nekkoon kon loolu moom dafa mel ni bi muy dugg ci débat bi moom xamagu doon loolu mu ngoog Ibnu Taymiya moom li ma ko ci wax doy na xanaa euh, bu fekkee ne euh, gëstu bi dafa def tam waaye war naa xam ne Ibn Taymiya am na téere bu ñu tuddee Muxtasaru Fataawal Misriya boo xam ne Cheikh Islam Ibn Taymiya moo ko bind yàgg na Misra Ibn Taymiya diggante Sham fi nga xam ne fa lañ wax ne Kamaluddin baytul maqdis Kamaluddin al-Maraqi fa la nekkoon lu mat fanweeri at foofa moo fi Ibn Taymiya nekkoon lan lan moo leen utale yëpp ardu Sham lañ koy wax. yëpp ardu Sham la seen suuf la kooku am foofu fanweeri at di mu jaawara Kamaalu Diinil Maraaxi kon kay doo wax mën nañoo daje wala mënuñoo daje loolu loolu jarut wax kon affaire bi des na ci ne nettali bi yéen waa tasawuf yéenu neen yéen ko moom tegal naa la si nag saxalal la ci téere bi nga xam ne mooy charf fusuusul xikam foo xam ne ibn eh, tilmisaani dafay woote wahdatul wujud bu leer naññ te du benn béréb mënoon nañ ko indi ci yeneen i béréb kon maa ngi leen di euh, nuyu yéen ñëpp euh, di sant euh, mbokk mi nga xam ne moo doon modéré débat bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Cheikh Omar Mbaye xam ne am na mbokk mi ne ab laaj ci suuf mu ne balaa ngay dem ma laaj la ko ndax yow am nga benn téere boo xam ne Tilimsaani moo ko bind benn téere ndax am nga ko boo xam ne. Euh, Tilem Sani moo ko bind lu daal benn mbokk moo koy laaj incha allah. waaleykum salaam wa rahmatullah sëriñ Aboubacar ñu ngi lay baax de ziar waaw ñu ne wàcc de euh, daanoo ci gën a gaaw xam nga dana ko jigéen déet waaye daanoo gën a gaaw euh, loolu ma dugal charxu fusuusul xikam la waaw eh, Tilmisaani moo ko bind moo ko charx fusuusul xikam gis nga rëddu xonq woowu ma def. soo fa duggee da nga fa fekk mu wax lu garaaw mooy nit yonent yàlla noox yi ba leen yàlla alagee loola tuddut alag ci am ndox la leen dugal buñ foog ne safara la leen dugal ci am ndox la leen dugal ñu fanaawu daa xam yàlla subhanahu wa taala bi nga xamee nag ne topp na wax ja wane ne ñoom yàlla la muy mbugalee ak la muy xéwalee yëpp benn la fa mu ko daanelee mooy dafa ne wax ji manees na koo firee aaya bi mi màqati aatim uxriqu fa utqilu naaran nee na manees na koo firee aaya bii de su dee ci madhabu tasawuf la waaye nee na bu dee ci olamaa yi nag xanaa mooy ñi topp kitaab ak sunna parce que tilmisaane xam na ne topput kitaab ak sunna su mu ne bu dee olamaa yi nag maa olamaa u sharia yi nga xam dañoo topp kitaab ak sunna ñoom moom nee na loolu kenn du ko ko mën a mu ne nag moom pour dëggal yi am na ay xasida yoo xam ne nii da ko cee bind def ko pour dëggal ne nii la mbir mi demee comme ni ko sëriñam ibnu arabi waxee kon euh, mbir maa ngi noonu euh, am naa téere ibnu euh, kii nu mu tuddati ibnu tilmisaani téereem yiñ mool yiñ mool am naa leen walillahi alhamdu wal minna ayca eh, léegi kon <laughs> Omar mbay mag ngi may jàngal nee na xawma woon ci bi may dugg ci débat bi ne ibnu afifu diine tilimsaani nekkoon na Égypte xawma woon loolu pour ngeen xam ne ciy caaxaan la nekk nag lii mënuma ko bind léegi maanaam lii ñii ma def nii lii sama gëstu la mën naa koo def pdf wàccee ko ci group bi léegi lii ba ma koy gëstu du tey du démb ci guddi itam ba ma koy bind du tey zalla muqiman fi masr ila sanati sitt mia wa waxid sittin ba may wax ne nekk na di jàng ca tarjamaam ne nekk na Égypte ba six cent soixante et mu door faa jóge léegi six cent soixante et un ci la fa jóge dem dem Dimashq bi doomam juddoo ci la dem Dimashq loolu man kañ laa ko gëstu woon ba koy wax moom mu bëgg maa jàngal ne ma ibnu taymi xamoo woon ne temsaan nekkoon na Égypte da da gëstu bi dafa des waaw ka gëstu ba des nag mooy kay wax te amul benn tiir tilimsaan yi boo xam ne mën na caa dellu ne manaangam bu fekkee ne waa ji dafa ñëw Égypte dafa ñëw Dimashq dafa ñëw Dimashq te wax nañ ne mi ngi ñëw Dimashq sept cent vingt neuf sept cent vingt neuf fekk na Ibnu Taymiya mi ñu war a nettali xew-xew bi moom ci boppam faatu na Ibnu Taymiya ci boppam faatu na ibnu taymiya ci boppam faatu na muy benn tilim saani faatu na su fekkee dimashq googu mën nañ faa daje su fekkee égypte lañ war a daje tilim saani ba muy jóge égypte ibnu taymiya juddoogul kon fan la ko mën a nettalee mbir mi fan la ko mën a nettalee mbir mi léegi nag su ma amee xissa am téere ci ban laay jàpp ci xissa bi walla téere bu wér xissa boo xam ne boo toppee silsile yi ci say noonu lay jaar loolu laay wër déedéet damay jàpp ci li tilim saani wax te bindu ko te téere bi nekk ak man bépp nettali bu wuuteeg téere bi ma sànni ko te jàppal ne téere bi nag Dimashq la ko doon jàngale téere bi nga xam ne moom la ca nekk moom sharia bu wér la su alxuraan ak sunna loolu Dimashq la ko doon jàngale te Dimashq la faatoo waaw fu mënoon a waxe wàllu waxdatu wujud est-ce que man nañ ko ko askan moom moom mi nga xam ne ca gannaaw loola daana jàngale leneen loo xam ne alxuraan ak sunna la waa ji dafa gëstuwul day saaga léegi nag kum gis nga saaga wax ju ñaaw jum gis rek da koy indi ba xam wér na wala wérul yoonam nekku ci moom day indi lu ñu wax lu ñaaw ci tasawuf loolu lay dajale xaamuusu shataim la loolu moo tax mbir yu mel nii waaye nit ku bind mbindam maleer leer dëppoo ak alxuraan sunna ñu nettali ko nettali bu dëppoo ak alxuraan sunna nga dem jël li ba bàyyi mbind mi yaay naa fekk nag. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm nag di ñaan yàlla mu sàmm leen yàlla yàlla bari seen kem ci kaw suuf ndax macha allah yéen a ngi liggéey liggéey bu am solo ci. ci diine yàlla fay leen yal yàlla fay leen bu ko defee Cheikh Modou Kama xam naa boo tontoo rek yow it mën ngaa tëj su ko defee ñu ànd ak ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo bëgg a def seen i ci waxtaan yi ku ci mel imam bu Seydat docteur Khadim Bousso incha allah wa fikum